asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Waarwi TV di leen sant bu baax baax baax ci seen choix bi ngeen porté ñëw def seen émission tey ci Touba Matériaux vraiment ñu ngi leen ciy félicité bu baax a baax ci sama kàddu li ko dalee ci directeur général Touba Matériaux monsieur Abdoul Ahad ak l' ensemble du personnel ki fi nekk ñun ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax ci li ngeen def nii di leen ci remercier man Maguette Diagne laa tudd maa nekk le responsable QACC e, c'est-à-dire qualité. hygiène sécurité environnement en même temps aussi euh, man maa nekk le man maa nekk le euh, je suis le coordonnateur par intérim cest dire dafa am kenn ku fi nekkoon yoon nekkoon doon coordonné projet bi à un certain moment dafay nekkatul sur nag man maa ko assuré gu noonu di di surveiller yenn travaux yi superviser yenn travaux en attendant ñuy am keneen ku ko dóor yooyu noonu hmm. pour moom loolu ma jox la date exacte moom ça sera trop difficile pour man parce Euh, bi ma fi ñëwee léegi yàggagul c'est vrai que am naa fi ay un an quelque yooyu noonu mais xam naa daal lu ma mën a xam dëgg dëgg dëgg mooy entreprise boo xam ne si yàgg na euh, je peux dire que diire na vingt ans. parce que ñoom travaux yu ñuy yu ñuy yi ñuy toog léeg-léeg mu ñuy wax naa ñu lii ak lii ak lii la durée la def kon cela veut dire que société bi yàgg na parce que am am na am boo jëlee ay ca ay caaroy am na ay écoles yu nekkoon foofu noonu moom moo ko defaroon tey boobaag léegi. presque dep bu duggul bu paasewul vingt ans it nekk na à vingt ans yooyu noonu quoi kon donc je peux dire que entreprise bi dëgg-dëgg yàgg na yàgg na moom. avant may dugg ci projet bi sax dama fàtte université bu bu jam ñaajo bi université Amadou Mahtar Mbow doo ñu di ko rendre hommage sax parce que tey la ñuy célébrer cent ans di ñaan yàlla yàlla gën a guddal fanam gën ko fee bàyyi euh, boobu am na liggéey bu am solo bu mu fa defoon. yaakaar naa liggéey bu am solo boobu moo fa defoon moom moo wàlle tey université bii di projet euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim mu defaat ci benn euh, liggéey bu am solo bu mucc ay boo xam ne si gëm naa ne def ngeen visite gis ngeen bâtiment yi gis ngeen travaux donc kon projet bi euh, je peut dire que ni projet projet bu rëy la pour le moment nii ci première phase bi ñu toll ñun am nañ ci neuf bâtiment juróom-ñeenti bâtiment yoo xam ne si ñun ñoo koy taxawal te macha allah. pratiquement neuf batiment yëpp am nañ ci avancement bu bu jéggi dayoo daal. Mm-hmm. Mm-hmm. am nañ ci avancement bu jéggi dayoo. Euh, waaw man nag mën naa ne doomu dëkk bi gis nañ ci seen bopp parce que am na benn euh, léeg-léeg ci formation yi am na yenn yoo xam ne sii dañ la koy jàngal. la responsabilité sociétale de l' entreprise c' est à dire entreprise bi ban nekk nekk ban nekkin la war a nekk dëkk fi mu dëkk fi mu fi mu fi mu fi mu samp maanaam dëkk bi mu samp wala gox bi mu samp naka la war a nekk ak ñoom ndax gox boobu war nañ ci gis seen bopp wala gisuñ ci seen bopp man loolu su ma koy wax dama naan ñun Touba gis nañ ci suñ bopp bu baax a baax a baax a baax a baax parce que rien que suñu site bii rek Touba matériel laa wax parce que projet bi dafa yaatu ñun li ñu concerné euh, Touba Matériaux am na ay employés yu bari partout ah partout sur le plan national boo demee ay Matam Dakar Ourossogui ay partout ay Kaolack et tout am na fa ay ay kii mu fay doxal mais fii ci Touba. site bi nga xam ne ñun moom moo ñu concerné ñun li fi nekk rek ci ci ci ay employés mën naa ne quatre-vingt-quinze pour cent des employés yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Touba lañ dëkk. am na nag parce que mënut a ñàkk liggéey bu dey ni diversité munu si ñàkk am na ñu jóge ay dakaar am na ay Thiès am na yeneen dëkk mais jàpp naa ne quatre jàpp ma ko sax mooy li am quatre-vingt-quinze pour cent yëpp. yi fi dëkk Touba gi la dëkk seen i jur fi leen dëkk ñii seeni soxna fi lañ nekk ñi seeni borom kër fi la nekk kon donc man mën naa ne waa Touba gis nañ ci seen bopp ba ci man mii di wax ak yow waa Touba laa fi laa dëkk. Euh, deux catégories dañ fee am dafa am ñoo xam ne si ay journalier lañ leen di wooyee journalier par quinzaine lañ leen di fay chaque quinze jours chaque quinze jours dañ leen fay cest kon weer bi dinañ leen ci fay deux fois. Euh, ñun ñi nga xam ne ay salarié la nag par lan ñuy fay te ci côté boobu tamit sant na ci yàlla bu baax a baax man depuis bi ma fi nekkee ba tey suñu salaire musul tardé musul dépassé le 5 avant le 5 ñun ñëpp dinañu fay suñu xaalis man de mënuma ko xam wax dëgg yàlla parce que sama dëgganteeg yàlla rek laay wax man fii laa ko xamee ci Touba matériaux gi laa ko xamee bien avant nag daan naa dégg turam ñu di ko wax musuma ko gis fii laa ko gisee mais lii ma gis fii ci ci Touba matériaux gi man de am naa ultime conviction que ni ah, bu ñëpp meloon ne moom de bu taalibe murid yëpp meloon ne moom wax dëgg yàlla dëkk bi dina développé parce que liggéey bi café wu ko benn yoon bañ na ko ba ku ko nar a tardé dana sàkk ak yow pexe boo ko gisee tey détermination bu mu am ci visite bi rek def ngeen ko ngeen war a xam ne kii nii amul ay caaxaan ci dara dara dara liggéey moom moo ko ñor te incha allah rabi projet bi dana ko ñaan nañ yàlla mu àggale ko ci gën gaa rafeti anam te te incha allah gëm naa ne aussi tamit suñu borom danañu kàttanal dooleel ñu ban àggale ko dëkk bi di wax nag loolu ñoom la concerné mais man vraiment ama ama modeste personne lu ma gis man liggéeykat laa gis ci moom te nag vraiment nit ko xam ne si ku ku ku def benn parcours bu riche la koo xam ne si tout ñëpp war nañ ci jël comme kii comme comme comme war nañ ko def référence quoi. ñëpp war nañ ko def référence parce que parcours am fu mu moom vraiment ah gis naa gis gis gis nit de dund na ba dee nekk fi président de la république nekk fi laneen ak laneen ak laneen mais fi mu jaar nii fi mu jugee. fa mu jóge dëkk ba mu jógee ba ni mu accès Touba matériaux yii li fi xew bari na li mu fi réalisé tamit n'importe kii du ko def. Hmm, euh, pour tey pour ma euh, tënkale li ñu fi jël yëpp yëpp pratiquement am naa ne dama lay jox li point bi ci ëpp solo rek mooy livraison des batiment jàpp naa ne dégg ngeen ko bi ñu koy wax. parce que am na ay bâtiment yu fi nekk muy batiment témoin bee bi ñu defoon visite ak bâtiment milieu droite ak médialiste mais pour batiment ma témoin ak milieu bi nekk suñu gannaaw incha allah moom ñun dañ ko euh, suñu met suñu directeur technique monsieur Thiam dafa joxe daan ne incha allah le 10 mai. le 10 mai dina dina dina livrer ñaari bâtiment yooyu mais comme li ma la li may dikkaat léegi rek Abdou Lahad ci détermination ak engagement bi mu am pour liggéeyu sëñ sëriñ Touba bii nii caaxaane ko benn yoon moom nee na incha allah plus tard le 30 avril dina livrer bâtiment yi muy bâtiment témoin ak bii ci suñu gannaaw dina ko livrer beneen batiment bi ci topp muy droite bi plus tard le avant le plus tard le 30 mai incha allah moom tamit dina ko livrer mu des majalis bi sànq bi ñuy dugg bi nga gis te majalis boo ko gisee xam ne bâtiment boobu du bâtiment bu ndaw li may wax rek xale koy song waaye mag a koy daan euh,

eh Balla Balla bu ñu Balla wax wax na ko ko ko def ni ko waxee dana ko bari def ko jeex na dama dañu ñu leen ko teg lañ xam parce que duñu ko teg te defu ma ne leen ma ne leen essai essai wu defu ñu essai de pression bi ma ne leen fiance bi la ñuy teg duñ teg duñ teg solde nañ teg fiance bi bu ñu ñëwee parce que booba maa ngi bëgg essai bu ko possible nan la ñuy def maanaam ci jàppante ngeen man non arrêté ma ne leen man maa ngi jël nii ku ma fi sax mais dama ne leen bu leen arrêté kon ne leen au moins bu commission bi ñëwee buñ ci duggee mën a décider ne lii na mel nii li mel nii comme ça danañu permettre ñun ñu mën a continuer. léegi léegi man daal continuer léegi man daal léegi garab bi nga wax ni balaa 15 projet bi seen seen seen seen léegi léegi